wajalilaayi maskani tubaabaat misras mi abijaayi xayri manabaat xaadim ba féete fële sa diwaanu Gàmbi nekk collecteur Touba sa kanam jiite socialu Gàmbi Touba sa kanam ànd kook soxna Jeela Géy tey na ñu teew fi rek si turu waa Gàmbi yépp rek si njiital suñu jëwriñ sëriñ xaalim Caan ak sëñ Mbaye Tène ak sëñ Saali Ngom ak mboolem mbokki collecteurs yi collectrices yi nga xam ne bii ne ñoom lañu àndal gàm bi yëpp seen kàddu la ñuy waxee di leen xamal ne rek ah, waa Gàmbi moom si Touba sa kanam ay jàmbaaroon yoo xam ne bii ne posté bi foo ko takk paase na ko xanaa di leen sàkku rek ci kilifay yi sa kanam yëpp si njiital sëñ Abibu sëñ Abdulaat Abibu ak mboolem kilifa yëpp rek ñu gën leen a defal ñaan ba suñ borom gën leen a dimbale ba lépp loo xam ne bii ne rek ñu ngi koy woote si yoonu sëriñ bi rek ñu am sa pas bu mat sëkk te lépp sëriñ bi nangu ko gannaaw di soññ suñ bopp rek di soññiwaat ñëpp rek ñu gën a jàppaat si liggéey bi te xam ne sëriñ bi ñu liggéeyal moom ah moom ñemewut bor daa am fay gannaaw loolu damaat kontaan ak mbégte bu baax si jotaay bi ndax ñu bëri dañ daan dégg rek seeni tur ci groupe yi kon jotaay bi am nañ si mbëgte goo xam ne bii ne kawe na lool waaye nag li lépp li ko war a rek mooy liggéey sëriñ bi rek ndongo li mbay seen mooy yeesal ziar di indi nuyoo bu waa Touba benn yépp di feeñalaat mbégte bu baax tey santaat Cheikhul Khadim ndax wax dëgg yàlla jataay bi jataay bu tawféexe la sant nañ sëriñ Touba bu baax ci yokkute gi ni ko suñu jàmbaar ji jóge Angleterre waxe suñu Baay yokkute yokkuteg taalu bi néewul ci milliard rek mu ngi tàmbalee ci yeew gi nga yeewu saafoonteeg sa moroom taalu bi boo xam ni xëy na mosoo leen a joxante loxo wala mosoo leen a gisee loolu mooy dëgg-dëgg yokkute di ziar mboolem ku ñu séqal jataay bi tey ñaan Serigne Touba mi nga xamante ni moo ñu fi dajale yàlla nañu nangul euh, te gën ñoo xiir ci ñu du ko liggéeyal ndax jàmbaar mayewut liggéeyal sëñ Tuubaa tawféexi Seexul Xaddim rek mooy maye liggéeyal Seexul Xaddim waaw ndax nit yor nay milliard ba tàyyi te gisul bunt mu war a mën a liggéeyal sëriñ kon ku sëriñ bi womat ba boole la ci mbooloom loo sant doyut sant googu yëpp nag ñu ci jiital ñaanal sëriñ Muntaxa mu yàgg fi ñaanal mboolem waa Touba ci kanam te sëriñ bi teg loxo ci jataay beeg liggéey bi lépp luñ ci jëf ren mbaa tey jii bu déwénee ñu man ci daraje Seexul Xaddim gën a jonjoo rek ñuy fas yéene royaat ci seen jëmm yi jàngaat nàmpataat bu baax a baax kii wax ak yéen mooy seen bokkum taalib si Abdoulaye Ndiaye imam di liggéey ca France bokk ca ñaar fukki teg juróom-ñett ya nga xam ne yor nañu bureau France waaye fukki jawriñ nag jiite leen yoo xam ne ñu am Pastef lañu mooy coordination bu France su temps bi xatul woon damay lim seeni tur boo ci tuddee Serigne Lamine Sarr tur ji sëñ xaadim bajaan sëriñ abdoulahi jaañ sëriñ seexuna dumbuya ak sëriñ murit ndaw ca soxna ya nga jël soxna alimatu dukkure di am pastef lool ci social tudd soxna am yàlla njaay soxna faccaam maam jaara soxna am yàlla njaay bàyyi faalu soxna jaara tudd ci itam soxna xuri ngom ak soxna maane Thiam mi nga xam ne mooy seen secrétaire général fukk yooyu yàlla dogoon na bi France defee coordination ak léegi ku ne xam ne liggéey ba ma ngay avancé ma ngay gën di jëm kanam loolu yaakaar naa ne ñi nga xam ne ñoo yor wàllu finance danañ mën a dëggal loolu ma wax noonu nag nuy ndongalu xeebu ànd ak ñoom ca liggéey ba bokk ci ñi nga xam ne daañ leen di xelal léeg-léeg bokk itam ci scientifique culturel bi nga xam ne mën si ñëpp daay jaañ jiite foofa bokk ci soo commission bi nga xam ne bii mooy saytu ak laa biir say Mbay Tine mi jiite ko ak sëñ Abdou Salaam Faye yàlla yàlla fayal nu leen waaye ma di leen leeral ne liggéeyu Touba ci kanam bii yàlla dogal na bi ñu defee coordination bi ak léegi ca France fa tabarakallahu mi ngi avancé kon na ngeen ñaanal yàlla seytaane ba a dox suñu diggante ba liggéey boobu gën a jëm kanam ndax itam saa bu mbir jógee te tegu ci yoon fàttaliku leen la seytaane waxoon suñu borom subhanahu wa taala daf ko noon danaa galandu ci yoon wi gaa ñi jëm si ci yow danaa fexe ba duñ agsi te gis nañ ni yoon bii nga xam ne ci la jaar mooy yoon bi nga xam ne mooy yoon bi gën a jàppale tey ci liggéeyal Seexul Xadim yàlla yàlla euh, saxal na ci te defal leen jàmm. waaye te mbégte moo xam ne ah, am nañ ko tey ndax xame boo gis rek yokkute la tey jii day nañ fi xamante xamante ay ay jullit ay mbokki taalibe te loolu mooy yokkute alal baax na lool waaye xamante baax na lool yal na yàlla def ñu teewe fi déwén ñu bari te ñu teewe di ziar. di ñaanal tamit suñu jëriñ El Hadj Abdou Thiam président Guinée Conakry di ko ñaan mu gudd fante wér waaw ñun ñoo fi taxawaay Guinée Conakry di ñaay yàlla mi nga xam ne moom dara tëw yaan yàlla def ba Touba ci kanam ñu Guinée Conakry ñu xam dégg dégg Touba ci kanam mooy lan. comme ni ko suñ mbaytan waxe lii lu baax la ndax euh, sanq bi may nuyoog suñu Abdourahmane Diop. ci ni mu ko doon waxee moom ne nit ñi mën ngay déggante ñoom ci groupe yi doo xam ban genre nit lañ xamoo mag lañ wala ndaw lañ wala cakkatiw comme ni mu ko waxee waaye yàlla xam na ni moom bi ma ko nuyoo wax naa ko nee naa ko li nga doon wax dal na ma ci yow ndax ab paalaa la tegoon <laughs> ndax euh, moom macha allah ay kàddoom dafa kilifa te dafa responsable ma ne ko bi ma bi nga ma nuyoo bett na ma lool daal moo tax lii jataay bi daanaka lii rek jar na ko kon daal ñi ngi nuyu ñëpp di leen siyaare di wax ne euh, maanaam distance bi rek moo ñu taqale waaye xol yi daal jege na. ndax ay bokk yi déggante fu ñu toll. saa su ne itam nga xam ne li ñuy déggante ñun ak yéen su waa kër yi bopp sa déggante wuñu ak noonu te gise bi itam néew ba koo ci dajal ci mbedd doo ko xam kon dana neex lool ci jotaay bu mel nii ñu gisante xamante loolu rek ak yokkute la ngir Touba ndax loolu li muy li ma li ko bokk na ci li koy firndee rek mooy kàttan kàttan yi ñu boole mooy man-man bi tax ñuy def lii ñuy def te lii daje ngir Touba ca kanam lu ko ëpp foofu di ay taalibe Serigne Touba ñi ngi ci Touba lu ko ëpp fuuf taalibe Serigne Touba ñi ngi ci réew mi kon nag li manqué ci ñoom mooy booloo gii rek kon mbooloo mu toll nii ak yi des yëpp rek yàlla nañ ñëw fekk si Touba ca kanam ba objectif bu millions de murid di mat yeneen millions ngi des yëpp di ay taalibe Serigne Touba itam ñu jàpp ci liggéey bi 2 milliards ñu di ko romb 24 milliards par wax ne tur wi kon mooy Mame Mbaye Sylla niñ ko xamee cër biñ ci sëñ Touba sedd mooy secrétaire général bu Touba ci kanam waaye boole ko jiite commission bi ñuy wax commission administrative ak mboolem ñi nga xam ne ñoom lañu ko àndal yépp di am mbegte nag lool ci jotaay bii nga xam ni moom laa ñëw tey mu may fàttali jotaay bi nga xam ne ca lañ doon sosee Touba ci kanam ci gës sëñ Dame Atta mu sëñ Ibrahima Mbacke nga xam ni sos nañ groupe whatsapp bi lu mat ñaar ñaari weer ba ñetti weer ñuy jokkalante ay kàddu waaye bis booba yam ak bisub àjjuma ca tàkkusaan ja mën naa ne lu ëpp ci tubaa ci Kanam keroog ci lañ tegante bët loolu nag moo dellusiwaat ci jotaay bii muy jàmbaari sëñ Touba yi nga xam ni ñoom laay jàkkaar lool te ñu féete ci bitim réew mbaa sax ci biir réew mi te kenn ku ne fa nga féete nga am taxawaay bu wér boo xam ni yaa ngi ko fay taxawal tubaa ci Kanam bu ñu waxee loolu mooy yaa ngi ko fay taxawal Serigne tubaa te taxawaay boobu man mënut ñàkk te taxawaay boobu waxtu wu ngeen ko defee rek yóbbaale ngeen mboolem Touba Ca Kanam kon ñoo ngi leen di ñaanal sëñ tubaa defal leen tawféex guddal seeni fan te wéral seeni cër ba yéene ji ñu am ci liggéeyal sëñ tubaa ci biir Tuubaa kanam lépp ñu man koo matale. ci bi nga xamee ni yàlla dogal na ci tooli sëñ Tuubaa bii ñu am ci mat ñu doon adjoint trésorier sëñ Ma Fari Ndiaye ñoo topp ci ginnaawam nekk rek koo xam ni tey dongo boo xam ne dafa am pas-pasu liggéeyal sëriñ Tuubaa fekk fi tamit kilifa yu ko mate yoo xam ne dañoo ànd di liggéeyal Serigne Touba liggéey bi nag moom daanaka dañuy bañ a feeñ ndax ay nit bu ñu dee liggéey Serigne Touba bu ñu feeñ bu ñu nekkee benn te kenn ku ne sa moroom gënal la sa moroom incha allah Serigne Touba leen yëkkati te la def dana jëm ca kanam kon nañ gën a jàppante gën a bëggante te xam ni ñoo bokk lenn luñ bokk. ñoo ngi nuyu mbokki jullit yi teew yépp di jiital nuyoo bi sëñ Abdou Lahad ab yi mi mooy kilifa jataay bi di ko siyaare bu baax di siyaare mbooleem ku nekk ci biir Touba ca kanam rek di la bala di la balaax yoo xam ne man Modou Lo la coordonnateur bu Kédougou ak ñama fa bokk nekk ñu ci bari dañoo dellu sax waaye kon danañ ñëw waaye ñu ngi sant mbooleem koo xam ne sii rek ñu ngi lay dégg te suñu laa gis ñu ngi lay siyaare bu baax a baax di la sant di la gërëm di ñaan suñu borom mi nga xam ne si ak xaadi Moussa mi nga xam ne moo tax ñuy liggéey lépp lu ñu def ci Touba ci kanam rek yàlla na ko nangu te fulal ñu ko làq ñu ko fa yàqu eggut ñoo ngi sant waa Kédougou gépp nag ndax ay jàmbaar lañ lool. di am mbégte lool ci jataay bi nga xam ne am nañ ko tey fii ci kër Cheikhoul Khadim bi àndandoo ko ak su mbokki taalibe yi nga xam ne dañ daan déggante li ci ëpp te duñ jàkkaarloo ci ay bët tey suñu borom dogal loolu jeex. ñuy sant yàlla bu baax ci jotaay bi ndax ñu ngi ko seq ak mbooleem ñi nga xam ne ñoo liggéey ñoo yor liggéeyu Touba ci kanam bi di ci jiital sëñ Abdoul Ahad Habib mi nga xam ne moo toog toogal fii sëñ Habib Mbacke mu Cheikh Mamadou Fadilou ak El Hadj Sëñ mi nga xam ne moom mooy ambassadeur Touba ci kanam di jaajëfal itam sëñ Abdou Fata ak mbooleem ñi nga xam ne ñoom la àndal liggéey bi di wax ne kii wax ak yéen Cheikhouna Mbacke la bokk ci ñi nga xam ne itam. yàlla dogal na bi ñuy taxawal Touba ci kanam ci la bokk ci ñi ko sos ba léegi te fa suñu yéene teg suñu tànk li fekk ñu ngi dund xam naa bu dee ci ay at itam jàpp naa ne ñi nu ci mag bariwul kon bokk ñu ci gone yi ci mag ñi lañ bokk di ñaanal ñëpp nag jàmm di ko ñaanal sëriñ Muntaxa mi nga xam ne moo ne suñu kanam ñu war koo xool def ko royukaay di bàyyi xel ci moom aw doxiinam ak yitteem ak ak ak ak tabam ak yéene ñëpp jàmm yéene ñëpp aw yiw loolu kenn ku ne ci biir Touba Ca Kanam war nga ko roy ci moom ndax benn membre la ci biir Touba Ca Kanam bopp ab soññeem fu Touba Ca Kanam àgg moo ko fàggale ginnaaw bu yàlla waaye ak sëriñ bi ñu ko liggéeyal nun nag la wax ne ñoo jiite commission discipline muy commission bu doy waar boo xamante ne bii xam naa dana xaw a jafe liggéey ci waaye ñu bëgg nag mbooleem mbokk yi nga xam ne ñoo bokk ne ci biir Touba ci kanam yéen ñi nga xam ne yéen jóge ci bitim réew ñëw fi ak ñi ne ci biir réew mi jóge ci région yi ñëw fi kenn ku ci nekk na xam ne buy dem mu yóbbaale ne Touba ci kanam am na mbooloo moo xam ne ñoo yore ñoo yore yar bi ak teggin yi ci wolof ni ñu ko mën a waxee ndax Touba ci kanam day loo xamante ne bii dañ koo taxawal di ci liggéeyal sëriñ bi am lu fi nekkoon ñu di ko doxee Touba ci kanam ñoo bëgg koo soppi kuréel yi fi jaaroon yëpp nag amu ci benn kuréel boo xam ne bi amoon nga mbooloo muy àtte ba daayira dalee am ba nëgën yi musta am ci Touba ci kanam ci la njëkkee mbooloo moo xam ne dañuy àtte àtte nit ki dañoo bëgg a ñoŋal alal yi Touba ci kanam dañoo bëgg a ñoŋal liggéeyu Touba ci kanam loolu moo tax bi ñu taxawalee kuréel yëpp ñu taxawal kuréel boobu ngir. doomu aadama fu mu nekk ba nekk mag la mu xam mu xam ko kenn du ko dëpp waaye liggéey bi ñuy liggéey Sëñ Tuubaa moom ñu bokk ci jubluwaay benn. rafetlu bu baax nag euh, jotaay bi nga xam ne am nañ ko tey ak mu muy loo xam ne nii man moom waa euh, surtout man commission bi nga xam ne moom laa yor muy euh, santé diaspora dañ ci ànd ak ñun ci lu am solo ndax bu ñu xoolee ñun matériel bi nga xam ne tey moom la ñuy jumtukaay yi nga xam ne moom la ñuy liggéeyee tey pratiquement 75 pour cent yi ci diaspora la jógee kon ñu am ngeen am taxawaay bu am solo boo xam ne nii am ngeen ko ci commission bi nga xam ne moom la ñu dënk commission bi nag yàlla dafa dogal ren la ko Touba ca kanam sos ba mu ko sosee tamit mm, seriñ tubaab bi nga xam ne rek moo ñuy liggéeyloo teg ko ci suñu loxo ñu ko ci santaat bu baax a baax ak santaat kilifa yi nga xam ne rek ñoom la ñu àndal liggéey bi waaye daal ñun ñun commission moom ñu ngi leen di wax mention spéciale démb rek moo ci mujj jot nañ euh, bagage yu bari yoo xam ne nii itali la jógee jot jot jot nañ fa jot aussi yoo xam ne jógee na Amérique Espagne naka noonu euh, ñu ngi gërëm bu baax diaspora bi di ñaan suñu borom gën a yombal seen nekkin foofu nga xam ne fa fa ngeen nekk. man nag may maa fi teewal euh, Côte d'Ivoire ci njiital sëñ Thierno Ali Ndiaye ak sëñ Mor Faasa ma ànd ak kon sëñ Ibrahima Diop Mourid Sadikh ak sëñ Abdoul Majib Diagne. ñun ñii ñoo leen nekkal Côte d'Ivoire man ma gën a féete Grand Bassam Grand Bassam ak Sëñ tubaa nga xam ne fa la jaaroon wax fa wax jure jëm fa waxoon waaw kon nu ngi leen di ziar bu baax di am mbégte lool nag di wax ne nun daal Côte d'Ivoire noo ngi ci seen ginnaaw fas yéene liggéeyal Sëriñ tubaa rek fexe lu ñu mën di def ba jëmal bokk ci ñi nga xam ne ñoo jëmale tubaa ca kanam. ñun nag suñuy kàddu day jëm ci soññee. jëm ci réew mi ñu jóge muy Brésil kenn ku ne xam na ne liggéey ba ñu ngi ciy ndam na bi waaye ñu ngi sàkku ñu gën koo yaatal bu baax ba képp koo xam ne am na mbokk mu fa nekk nga gën koo soññ ngir mu dugg ci liggéeyab Cheikhul Khadim bi nga xam ne Cheikhul Khadim gërëm na ko beneen bi ci topp nag mooy mu mel ne euh, ñu ci bari dañuy am jafe-jafe ngir dajale xaalis yónnee ko ci réew mi loolu nag ñun dañuy am benn proposition boo xam ne moom lañ ciy def ndax moom lañ daan doxe ci réew ma mooy ku ci dajale ti xaalis ba mu nekk lim du ñàkk réew mu ci nekk am na commerçant boo xam ne day jóge fii ci réew mi di jëndi conteneur foofu di indi soo ko dajaloo Touba ca kanam wax ak kilifa yi ñu lëkkoo lëkkaloo commerçant yooyee danañu ma leen mën a téyel xaalis bee foofee ñooñu déposé xaalis bi ci compte Touba ca kanam loolu proposition la boo xam ne dañ ko doon joxe ngir képp koo xam ne da dajale xaalis ndax réewu tubaab yi dajale fa xaalis ci yenn lim yi di ko dugal sa compte moom erreur la réew yëpp ci yem nag waaye yaakaar naa bu ñu ko dee doxalee noonu daal dana gën a dana gën a yombal liggéey bi. man Amy Yalla Ndiaye Baye Fallou Soxna Jaara bu sa Paris bu Touba ca kanam maa ngi leen di nuyu ci turu suñ jëwrin soxna Bintu Mbàkke sant mboolem ku déplacé ñëw fi soxna si nee na mi ngi sant ñëpp soxna Bintu Mbàkke suñ jëwrin ñun soxna yi mi ngi sant kull ku fi teew di rafetlu bu baax ndaje mi mi ngi koy rafetlu def ko ay ati at maa ngi siyaare ñëpp taxawal fi waa France taxawal fi waa Europe waa diaspora bi man am yàlla njaay di ci dolli rek nag ne ah subul salaam daa defoon daaw première édition guddi diaspora kafe diaspora jagleeloon ko Touba ca kanam di ñaan bu ci yàlla àndee bu dul mbas mi subul salaam dina ko organiser waat deuxième édition bi bu ci yàlla àndee waaw maa ngi siyaare ñëpp di ñëw di leen jotal ay cant yu jugee ci suñu jëwriñu social muy Serigne Mourtala moom Cheikh Abdoul Fattah mi ngi sant waa diaspora bi waaye di sant waa Touba ci kanam yëpp yëpp yëpp seen taxawaay ci social seen jàpp ci social am na solo macha allah di jaajëfal Serigne Mourtala moom it bi ko yàlla dénkee sociale ak tey ji ku ne xam na fa mu ko fekk ak fi mu ko indi tey kawe na njort lool kon nag Touba ci kanam ñu soñ ci social. ngeen gën a jàppale social ci li nga xam ne yéene na ko liggéeyal Serigne Touba ci dëkk bi muy jaamu yàlla ci jaamu yàlla yi ndax bàyyiwuñ benn wet ñu ngi ci logement sociaux yi ñu ngi ci dimbali néew di doole yi ñi ngi ci wet yu bare bari bari ñëw di nuyu nag bu baax a baax a baax waa diaspora bi waa diaspora bi maa ngi leen di nuyu ci turu sama tur ak turu Serigne bu Bousso mi nga xam ne moom ngeen moom lañu àndaloon di liggéey ak yéen diirub ñetti at liggéey bu rafet lool am lool yàlla dogal mu agsi fii mu agsi tey ñu jégeel jële ko ci jox ko ci yeneen yokk ko ci yeneen loxo di yokk Touba ca kanam Touba ci kanam nag noonu lay doxee dañuy liggéey fas yéene bis bu set ñu am lu raw lañ amoon daaw loola sax moo ñu indi fii ndax euh, sama kër lañ njëkk a taxaw lañ njëkk a def lii ñaari yoon def ko kër sëñ sooy bu sekk mu xat ñu doog koo commencé di ko defal kër defoon ko ci baas daaw ren gis ngeen fi ñu ko defee Touba ci kanam noonu lay doxe mbooloo mu mu doon rek foo mën a nekk bu subaa bu ëllëgee mënees na faa jëlee yokk yokk fa ci ñeneen ndax loolu la Touba noonu la Touba ci kanam di liggéeyee ndax dañoo bëgg jamono bu ne Touba ci kanam dafa yor ay tànk di dox luy dox nag taxawul kon noonu rek lay mën a mel. wajalilaayi maskani Touba baat misras mi xayri man abaat